ndeysaan muy jumaa ji mbokk yi mbokku Dakar Medine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi suivre fu ne ci àdduna bi nee naa leen ñu ne ak yéen ba léegi tey ñu ngi topp actualité boobu nga xamante ne jëm ci bu ba jóg parce que nee nañ leen ba léegi ah boo xoolee que mbooloo Tëngéej ñëpp génn nañ taxaw di xaar li nga xamante ne mooy koor boobu noonu ñu ngi koy xaar tey mooy bu Bouba jóg toujours di ma taayu di ko wax ah di ko ñaanal rek ñaanal yàlla xare ko ñaanal yàlla na ko yàlla wanaleeg Seydina Mohamed ah parce que yàgg na service sénégalais yi mbégte yàgg nañu defal bànneex ñëpp ñu ñu doon bëggalee yàlla na ko suñu borom bëggalee noonu moom Pape Bouba Diop nee naa la tey xol yi neexut ah xol yi fees na xale yi boo xoolee kanam yi triche na ñi ñi ñaa ngi daanu di jooy ndeysaan dégg naa nag euh, yàgg na def li nga xam mooy social fii si Tëngéej tey ko dékk micro rek doo muy doomu Tëngéej social bi fi Pape Bouba Diop def doon def moom la ñuy njëkk a wax mooy tabaski mu ngi ci xar yi Pape Bouba Diop korité yi mu ngi ci Pape Bouba Diop mu ngi ñëw noonu ànd ak li nga xamante ni tey mooy cortège bi ak emballage baa ngi koy indi tous les équipes de presse bi à Sénégal ñu ngi taxaw tey di ah, di gàttandu ki nga xamante ne mooy Pape Bouba Diop international nee naa leen du ma tàyyi di ko ñaanal di ko ñaanal toujours yàlla na ko yàlla xare àjjana si àjjana yu tedd yi yàlla na ko Seydina Mohamed teeru géej a ngi fii àdduna wërngal këpp amul kenn ku fi manqué waaye nag ni ñu koy waxee laaj seen defaan ñëw nañu ànd ko xam ni euh, moom mooy jumaa ji nga xam ne moo nekk fi ci gis nga loolu mooy li nga xam ne fi mu toll nii euh, moo fi am euh, département de Rufisque bi yëpp ànd nañu ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Tëngéej ñëpp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu kenn fi mu toll nii moom vraiment waa Tëngéej gi yëpp kontaan nañu waa Tëngéej gi yëpp ànd nañu ak moom ndax lii mooy li nga xam ne mooy dëgg nit booy ànd ak moom yàlla dogal ci moom li gën da koy ànd ak moom rax ci dolli muy gaynde goo xam ne Euh, képp koo xam ne nekk nga fi ci Tëngéej sant euh, nga ko ci ay bésam yi nga xam ne yëpp euh, waroon na ko mu war a ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Tëngéej ànd na ko waa Tëngéej a Pape Bouba Diop ki nga xam ne mooy sagub dëkk bii di ki nga xam ne mooy sagub Tëngéej tey lii mooy àdduna waaw waaye yàlla wax na ko kuli say fi say xatil maw ci kenn mënu koo bañ li nga xam ne wax na ci ab jaam bu jotee rek suñu borom da koy def waaye it mu def ko ñu nangu ko lool muy loo xam ne tey jii àdduna wëngal képp ñoo ngi fi euh, information yi fi mu toll ñu ngi koy jëlee ci wet gu nekk euh, di leen wax ni tey euh, bàyyi dara waa ASC Ndefane bi gis nga leen ñu ngi fi ak seen ay mayo tey boo xoolee da gis ne Ndefane yëpp kontaan nañu waaye. gars yaa ngi si côté bu nekk vraiment pour formation yi mais yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm te yal na ko yàlla euh, xare ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi nga xam ne mooy àjjana yi Firdawsi yi euh, mu loo xam ne tey jii képp kuy doomu Tëngéej fi mu toll nii euh, kontaan nga tey nga xam. Eh, eh, eh. wala mooy pap Bouba Diop ah, xool moom nañu ñuy génne noonu si kees gi waaw ndeysaan tous les presse du national du Sénégal ñëpp a ngi fi tey ah, di ko ñaanal yal na ko yàlla xare ajana ci Pape Bouba euh, waaye tey euh, neexul ba neexul mais te ngeej gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi fi tey te ngeej gi yëpp ñu ngi fi euh, vraiment yal na yàlla def jàmm ndeysaan saan ko daa ñu ngi koy wàccee di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare ajana ci ajana yi firdawsi ci moom mi nga xamante ne moom Pape Bouba Diop yaa gën a bégal nga xamante ne mooy sénégalais yi fu mu teewal ñu ko ci yàlla ko yàlla suñu borom teeru ndeysaan mu ngi di wàcc moom Pape Bouba Diop ñu ngi doon di ko yóbbu moom ñu ngi doon di ko yóbbu moom Pape Bouba Diop ah ñu ànd ñu ngi doon di dugal kees gi ndeysaan oh, oh. ilaha illallah ndeysaan Paa Bouba Diop eh, ndeysaan daw na yaram daw na yaram lii daw na yaram daw na yaram lool boo xoolee ka moom Paa Bouba Diop ak ah, ci na gi lépp nekk na nekk na lu lu doy waar ndeysaan ay ay ay moment yu difficile ñaa ngi daanu ndeysaan ñaa ngi daanu ñaa ngi daanu ñaa ngi daanu instant bi ndeysaan nit ñaa ngi daanu kara ma ne nit ñaa ngi daanu ndeysaan ndeysaan nekk na moment yu yu ñu ngi koy dugal fii ci biir euh, ci biir mosquée ñu koy dugal ci biir mosquée ndeysaan ndeysaan nit ñaa ngi daanu xool leen image yi nii ndeysaan ngeen ñu suivre euh, sur la TMS TV ndeysaan daw na yaram euh,